les 8 heures du matin au port de pêche artisanal de Sumbedjoun, sur la corniche ouest de Dakar. Beaucoup de femmes y exercent quotidiennement le métier d'écailleuse de poissons. Un dur métier qui leur permet de gagner dignement leur vie. femmes, une d'entre elles, à peine la trentaine, habillée d'un tablier et disposant de couteaux,

mu ngoonee ma wàcc ci suufu waas liggéey bi léegi mu am trois ans bay jàpp quatre ans yàgg na ah liggéey dagg jën metti na de waaye nag sant yàlla rek waaw moom soo ciy liggéey am ci jom di ci faj te ñaanoo kenn kon santal yàlla waas bi moom wax dëgg yàlla ci laa yor sama yëpp ba ma santee sama borom kër yàlla boole na ma ku ñàkk ki ñaan ku amul benn problème te tamit yaatal na ma surtout daal na ma may na ma pour may liggéey te lu ma yàlla boole ma ak sama mag bu jigéen bu baax mu amee dépense jox ko su ma amul bu ma xëyee sama ñu jëkkër dina ñëw maanaam daal social daal lañu liggéey moom sans dépend rek bu doxee mën nga ci am ay sept mi mën nga ci am ay cinq mille mën nga ci am ay dix mille tamit trois mille mën nga am deux mille liggéey moom du prix am nañ ay jafe-jafe surtout corona bi ni mu ñëwee nii dafa yàq suñu liggéey ndax client yi ñu daan gis 100 pour cent gisatuñ ko su ma jun dañ daan gis client yi jënd si jën waaye jën léegi booy seet sax bareetul 100 pour cent ndax métit bi waaw risque la waaw parce que sama loxo bi ngay gis nii dama jël jaasi bi dóor ko ci dóor ko ci wee bi dóor bu métti sax waaye lépp rek loo gis rek sant yàlla la man daal su may liggéey di dagg di faju sax man naa am lu ma suturloo rek am am loo xam ne loolu laay suturloo man ak sama borom kër man famille gi ma bokk faaw ma nekk sëykat ndax doomu sëykat lañu parce que ñafekat lañu mënoo jël ndaa parce que bi may xale aw ma beneen aw ma beneen ambition liggéey boo xam ne mën naa ci jàpp pour di ci liggéey waaye xam nga rek soo amul métier mooy loolu nga ñëw xool say morom yor say doom te dëkk bi laaf bi lu ci bari liggéey moo la ciy génn soo liggéeyul doo am parce que nit mën na la may benn million wala du mooy la deux millions te amoo ci loo jàppit boo ko téemee di ko lekk tamit day jeex te kooku da nga koy dem ñaanewaat balaa caag bu la nit mayee nga booleek li nga am fekk yow am nga si métier pour yaa ngi xëy di liggéey parfois day metti parfois dañuy xuloo waaye ba ñëg laa ma ñu de waaw parce ñu bokk rek ñooy xuloo ñuy nekk tamit ñooy jote xëy bu doon woon métier bi liggéeyuñu ñu ñu duñu dégg duñu xuloo duñu xeex ku nekk da ngay wut loo am waaw fii ni jëlu wàll yëpp del tàppi lañ maanaam par par koñ la rek day day am Kër Massar day am Tiwaawoon Pël day am jàmma gën fii façon kii bu nekk ñoo fii ñëw te la ñuy ñibbi mu gudd kër gi su ma xëyee man damay teel a yeew 5 heures du matin dina fekk ma yeew am naa ay seex yu ndaw sax

ñu jàppale jigéen ñi rek ñu suñu loxo jotul seen loxo jotul seen gannaaw wax da laa koy laaj mu jàppale ñu rek